atte bi jolli na tey atekaay bi naam Ousmane Sonko teewul ci atte gi setal na ko ci li nga xam ne loolu lañ ko doon toppee si njëlbeen te muy mbirum viol ak mënaas de moom ndax dafay baax buy amee ñu delluwaat ca gannaaw ba mbar ba mel ni contrainte ak yu ni mel beneen bi menace de mort ci boppam nga xam ne dafa bokk élément constitutif sax beneen infraction boobu di viol loolu moo indi tey procédure bi ngeen gis nii yëpp loolu moo indi bakken yi nga xam ne rot na te may profiter également ci occasion bi di jaalewaat seeni njaboot di ñaan suñu borom mu xare leen si àjjana ndax euh, li xew tey dafa metti mënuñu si woon wax nag ndax ñun ay légaliste lañ procédure bu amee foo xam ne dafa tollu dafay baax nga taxaw ànd ak dal waaye bu ñu ñëwee ba si càppandoog ba atte bi jub dafay baax nag ñu laal fa muy méttee te fa muy méttee mooy tooñ moo am si kaw Ousmane Sonko ndax mbirum viol bi ñuy wax amul mbirum menace de mort bi ñuy wax amul te loolu du Ousmane Sonko ko maa ngi rappelé ne bañ koy atte teewul ça veut dire que ne argument yi mu yoroon dossier yi mu waroon indi jébbal ko askan bi ñu gis ko loolu yëpp def ko te malgré tout juge bi si boppam nee na viol amul menace de mort amul donc dafa nekk lu doy waar loo xam ne tey lañ mën ko tey lañ ko mën a naqarlu tey lañ ko mën a jooy beneen bi am mooy décision bi nga xam ne juge bi rend na ko infraction bi nga xam ne moom la retenir ci Ousmane Sonko bokk mooy corruption de la jeunesse may rappeler ne kayit bi nga xam ne juge d'instruction moo saytu woon dossier bi jébbal ko chambre criminelle pour mu atte Ousmane Sonko corruption de la jeunesse boobu nekku si dafay baax tamit ñu leeral ko corruption de la jeunesse bi si jour biñ koy atte la ko procureur génnee teg ko si table bi ñun dabaaturuñ si parce que fekkewuñu waaye buñ si dabaaturoon dañu la waxi tappale la ndax corruption de la jeunesse ñoom jënuñu ñu ko xam mënuñu ko at toppee ate ko Ousmane Sonko ndax corruption de la jeunesse mook li ñuy wax incitation à la débauche mook li ñuy wax proxénétisme ñoo bokk kaa pour mu mën a am il faut ki nga xam ne moom lañ ko teg daan mu si tiire li ñuy wax subside mooy alal wala lu ni mel Ousmane Sonko mënuñu ko toppee corruption de la jeunesse donc waxi caaxaan la si anam bañ ko indee parce que may rappale nag ne. fii Sénégal justice nag dafa am nag nu mu war a taxawee amuñu sañ-sañ topp nit atte ko samb criminelle si loo xam ne bokkul woon si ordonnance de renvoi juge d'instruction bi il faut mu leer enquête bi corruption de la jeunesse bokku si instruction bi corruption de la jeunesse bokku si donc amuñu sañ-sañ ñëw si jur bañ koy atte indi corruption de la jeunesse te jaarale wuñ ko si anam yi ñu ko war a jaarale donc baaxul mais même bu doon sax def nañ ko mënuñu toppee Ousmane Sonko corruption de la jeunesse léegi nag jàngat gi si am mooy viol bi teggi nañ ko menace de mor teggi nañ ko yooyu crime la ñu indi corruption de la jeunesse bi nga xam ne délit la. sama naataangoo bi wax léegi si ko eh, kàllaama nasaraan rappelé na ko muy met Bamba Cissé peine bi ñu indi boo ko jàngatee. lañ siy gëstu lañ siy jublu mooy teggi candidature Ousmane Sonko loolu i faut mu leer il foog mu leer léegi nag dafay jox dëgg ñi doon wax te man mii ma njëkk si ne objectif ñi nga xam ne ñoo teg lii mooy teggi candidature Ousmane Sonko tey jii am nañ dëgg si ñooñu beneen dëgg bi ñu am mooy ñi nga xam ne dañoo defoon complot pour daaneel Ousmane Sonko la mu bari présenté wu nekk candidat am nañ dëgg si ñoom léegi nag li des ba des chacun assumera ses responsabilités maanaam ku nekk la nga sa doon da nga ko assumer ba mu mat sëkk te ñu nag dina leen topp duñu leen bàyyi may rappeler si loolu tamit te di jël askan bi à témoin ne leen ay plante déposé woon nañ ko depuis le début pour ñëpp ñi nga xam ne dañoo laale woon si mbir bi te leen doon toppee pour complot loolu réaffirmer nañ ko ba ñu demee si juge d'instruction bi tey nag ñu ngi xaar ay réponse ndax nag bu ngeen jàppee benn instant ne bakken yiy rot dañ koy jël faxas teg fale yéen a ngi nax seen bopp képp ku si laale dinañ la topp képp ku ci takk dina la topp te lum si jar nag dinañ ko def maître ferme yi question de yoo xam ne teel nañ pour ñu mën si wax ñun ñun daal lu ñu mën mooy jottali askan bi li xew li ñu mën mooy leeral askan bi kane Ousmane Sonko bi nga xam ne ma nga nii këram ñu barikade la nga xam ne loolu lañ ko toppee woon sa njëlbeen teggi nañ ko li ma leen di ñaan nag ñoom mooy comme teggi nañu tuuma yooyu viol bi nga xam ne moo ñu yóbbee li yëpp nañu dem këram dindi lañ fa def. loolu dama koy wax askan bi nañu am seen fula nañu dem teggil barrière yi nga xam ne moom lañ teg kër Ousmane Sonko ndax wax léegi nag bu desee ba des nag caaxaan a des ndax viol la woon ak menace de mort. setal nañ ko moom set li si topp yëpp ay caaxaan la nañ dem dindi barrières yi nañ dem dindi barricade bi c'est une demande sociale te nag caaxaanuñu kafuñu caaxaanuñu je vous remercie. Merci.